naka waar. yow daa mel ni corona bi laaloo la de. waaw gannaaw ma tuuti de. ma la fekk fii biir Colobane fekk la ngay defa ay rob maa ngi lay laaj li nga naan ma Gàmbi la jóg. waaw gis nga ñu baax la ñuy def rek xamuñ toogaay wóorul comme que mën nañ suñu métier. ay téer lan mbër lan mais xam nga mu ñoo toog di xaar laa ma parce que tamit Issa gis nga li am donc tamit xam nga il faut suñu liggéey moo ñu permettre ñu liggéey di am ay commandes yoo xam ne xam day dem partout dans le monde yii nii isaan Gambie la jëm nii. xaar wante seeg mi dafa gaaw mais sinon ko nu fekk yàlla ma tiim xam ne boobu léegi borom ak may woo téléphone xam nga moor koo envoyé yóbbu léegi nii si horaire bi donc rek xam nga mënul ñàkk. kon lan ngay wax xale yi nga xamante ne amuñu métier. ñu wuti ko ku si amul métier yaa ngi yaa ngi yaa ngi nax sa bopp parce que tamit c'est très important am na solo trop am na solo trop doo ñàkk fay rek kenn du la ñàkkal fay rek doo taxaw fenn naa may ma may ma may xam nga loolu baax na neex na quoi di liggéey nii am liggéey baax na si trop daal. lekk nga avance bokk nga ci mbër yi nga xamante ne jël nañu avance moment bi. non jël gu ma avance. looy xaar. waaw <laughs> ah, xam naa ne bientôt parce que wax ay promoteur woo nan ma wax nan sama combat donc nag waxaay nan bu jubóo si prix tamit wax naa ne li ma bëgg mën nan ma koo fay léegi kon dèjà xam nga yaakaar naa li si des ay ay ay ay application yu ndaw rek moo si adversaire yéen lañ lay proposé. non Cobra 2 la instant bii nii. Cobra 2 men. dugal ci loolu. liggéey. liggéey moom ci dugal. lii sama métier la làmb sama liggéey la. non xam ne feebar yëpp dañoo dajaloo nga jël siti. non même pas. Cobra 2 du siti de. fi mu toll nii boo yëpp ko fi bàyyi. ban feebar moo gën a yomb a faj. siti. non non soj faj day dem moom bu yàggee mu ñëwaat. faj boo xam ne da koy soj soj soj benn fan ñaare fan la mu wér. Ah. Cobra 2 soj la. soj la billaay da jël ay comprimé naan ko dem nekk nekk sa. waxal ko ba dëgg lay seetaan. non loolu mënu ko ma see wax. isa bii ne waxaal nañu ba jubboo man man man sama côté man waxaal na ak man ba ma jubboo ak ñoom joxe naa sama accord ni leen pare naa dèjà kon loolu mënu ma see wax dara pour ne sax parce que isa di contrat lié gunu aw ma droit wax ko dara. waaw mais nag bis mu ñu demee ba nga xam ne isa bii ne jël naa su boobaa moom lépp laa ko war a wax lu ma ko war a def naa ko wax lu ma def naa ko def un point un trait. noo gisee làmb moment bii ñu toll. làmb instant yi doxul. non instant bi lamb doxul instant bi làmb doxul parce que instant bi nii làmb toll na foo xamante ne nii kañ la làmb gëj a am. donc feebar bee tax mais tamit avant avant feebar tamit dafa dafa dafa dafa dafa doon dafa doon dafa doon soox. feebar dafa ñëw gën ñoo rey mu dee rek mais làmb da doon soox fan yii temps yëpp waaw année yëpp lamb doxul. waaw loolu tamit. noo gisee noo bi ñuy wax ak moment bi ñu toll est-ce que huis clos mën na dem ci làmb en tant que mbër. huis clos mënul nekk. huis clos nekk bu ñu bëggee def huis clos kay kon kay yomb na kon kay laaw bu am sabar na Baara Ndiaye jógee fas ànd ak Xaarim Fall ñëw taxaw Cobra doy jógee Pikine ànd ak adversaire ànd ak ki muy ànd ñëw taxaw ñu ñaar ñu toog ñu xaar xaar at bi suuf leen ñu bëri dem suñu yoon. làmb mënut a am huis clos làmb du football làmb ñaari nit a koy def ñenn ñi dafa am mbooloo mu leen topp moo xamante ni équipe nationale sax topp leen comprendre nga làmb mënut am véhicule loolu mënu nekk Bara Ndiaye mu dugg si làmb yu xool stade bi gisul kenn nan lay nan lay bëreewee xanaa kay damay mel kon ku jëm entraînement dem egg def ko affaire entraînement kon loolu bu amee bu ëllëgee du ma tak galaaju yàlla xam na loolu tey ji bu fekkoon làmb véhicule la maa Cobra doo ñu war a bëree du ma dem si benn sëriñ naa ko ñaanal ma ni may ju ni may jëlee jugee sama kër dem dem entraînement noonu laa takk sama ngeem dem entraînement daan ko yàlla xam na loolu en tant que mbëru Fass fan yi ñuy dégg ne dañoo bëgg a boole équipe Fass ak équipe Ndakaaru en tant que Bara Ndiaye bu nekk équipe noo gisee loolu. mais Fass xam nga Fass mooy Ndakaaru depuis longtemps parce que kat yi kat bi nekk suñu papa bu kat yi. ma koy nuyu au di ko ñaanal yàlla jàmm ak salaam ak njabootam yëpp di ko suye tamit euh, bonne chance si li mu bëgg def comme fi mu nekkoon fi mu yóbbuwoon yàlla na yàlla dumul moom mu ñu fa encore parce que tamit. moom produit la boo xamante ni xam na écurie Fass parce que moom moo yoroon Tafa Gueye bi Tafa Gueye nekkee xale ba ba Tafa Gueye champion lépp lu taf lu lees kat yi moo ko si def kon kat bu bu réperti waa day ñëwaat Fass loolu lu ñu rafetlu la ñun xale yi lu ñu rafetlu ñun waa écurie Fass tamit di ñaan yàlla tamit di ko dalal jàmm rek xam nga gaa yëpp ñoo ànd jàppale ko mu am li mu bëgg incha allah ndax moom ndam rek la bëgg moom lu mu am ndama ko gënal donc loolu nag pour bu ko dooleel dina am incha allah gannaaw loolu euh, xale bi nga xam te ne dafa bokk ci làmb feebar muy Boy Malika euh, boobaak léegi dégg nga nit ñaa ngi ciy wax euh, lan ngay wax ci ñi nga xamante ni nii am nañ doole am nañ mooy mun koo jàppale loolu la ñuy wax. waaw li ma leen wax mooy ñu ñu ñu ñu jàppale ko ñu jàppale ko soutenir ko parce que xale bu am avenir la si àddina xale bu am avenir la si làmb donc xam nga loolu noonu dañ ci interpeller suñu grand mais làmb ji dafa demee noo xam te ni tey jii nii exemple bu joxe ay exemple rek. Balla Gaye 2 Gris Bordeaux Modou Lo Eumeu Sène Tapha Tine Bombardier ñooñu noonu waxuma ñoom seen xaalis waxuma seen xaalis ñoom de mais am na ñu leen di jàppale ñoo xam te ni buñ si demoon si ñoom ni kat booy bii nii dañ koy ñaanal ket dañ koy ketal ñoom buñ jugoon si seen i nit yi bopp kenn ku si ne bu demee sa ñaari nit booy bi li mu bëgg si àddina mën na ko am wér mais dañuy ne si télé di wax rek mais li ñu bëgg duñ ko def ñoom duñ ko def ñoom duñ génn seen xaalis di defal booy bi mais tey kenn ku si nekk bu demoon si ñoom tey comme ni ngi si man nii ñoom ñu def benn association comme que association bi taxaw na ba pare léegi def benn ket ñu ne tey jii ñoom Gris Bordeaux mooy président moom moo jiite ket bi léegi Gris am na ay nitam am na ay nitam yoo xam te ne ay dañ koy jàppale même combat te combat lii moo gën a far parce que kii bakkan lay laaj. te comme ci dem ci ñoom ne ko damaa soxla 500000 ñu 500000 ci loxo. mais ñoom ku ci loxo wala du bëri du ma tudd benn mbër nag. dama ne. Gris maanaam bu demoon ci ki ko jàppal ne ko dama soxla 500000 ndax am suñ benn boy bu feebar waa ji ci 500000 teg ci loxo. ah mais bien sûr loolu waxatul ko te su boobaa li tax ñu koy gën a jàppale mooy tey imagine Balla Gaye Gris Bordeaux ànd Modou Lo ànd Ama Sène ñoom yëpp ñu ànd comme ni ñu def dem si télévision bi di wax foofu noonu léegi bu ñu defoon noonu tey jii dañuy dem dem def social bu ñu wëree ñett ni ñeent ni juróomi nit li faj boobu day am dañ koy am mais est na leen loolu jaralu leen ko moo tax loo si mën di dégg mooy bopp sa bopp instant bi ku liggéeyul yaa ngi nax sa bopp mbëri ku leen yaakaar dee lu leer nañ laa la wax. mbër wax dafim tool mbëri mooy wax Baara Ndiaye numéro 2 mooy wax le jeune lutteur de Fass wa comprendre nga je vais 15 combats 11 victoires 4 défaites samay morom amul ku si yàpp dama commencé petit ba grand ñaanuma kenn sens lijjantiwuma la sa des. donc dama ni mbëri ku leen yaakaar yàqu laa la wax muy mbër bu mag boo yaakaar te ko loxo jàpp ni moom la barke Seydina Muhammad yow mi sa bopp boo feebaree du la faj waxutuma ne ab jàmbur. nan dem liggéey ku amul liggéey da nga dem jàpp wut ci loo jàpp bu baax a baax ba nga xam ne doo taxaw ci moom naa ko may ma man loolu laay wax mbëri ndaw yi. soo amoon kàddu yu mujj loo ñuy wax ñu bàyyi la nga yeggali liggéey bi. waa kàddu yu mujj li ma ci am mooy ñu jàppale làmbu président la république dafa def benn benn benn stade fii ci Sénégal stade boo xam te ne na ay milliards la ci def léegi milliards yooyu noonu il faut ñu am loo xam te ne da koy accompagner pour mu mën a jàppale mbër yi dafa am benn affaire boo xam te ne ñi ngi koy wax chaque jour te waxuñu ko gis nga euh, am na mais mbër mu ndaw am na mbër yoo xam ne mu ñu dem stade euh, arène nationale Iba Mar gi nañ ñu ñu fay bëree Iba Mar Iba Mar nan bàyyi yenn combat yi am parce que dafa am combat xam te ni mooy daa dem Léopold Sédar Senghor am combat yi dem Demba Diop am combat dem fii Iba Mar Iba Mar moomuñu ko mais Iba Mar dafa neex si làmb benn deuxièmement am na ko may xam ne xañ na Iba Mar am na yenn ko may xam ne xañu Iba Mar mën ko yóbbu mën ko yóbbu lépp wël mën ko yóbbu fële arène mais bu fekkee da ngaa a xeex làmb nag ni làmb yëpp fële lay amee non su waaw nga làmb làmb du dox parce que am na ñoo nga tëgg combat deux cent mille dem fay un million et loolu dégg ma la même mbër ya nga tëgg deux cent mille am na ñoo xaadim xaadim Anta Seck mi ak xaadim Fall mi bu doon dëggaloon combat tey Iba Mar gi ñu bëri dañuy boo xam te di nga ko fay maximum 3000 aller ak retour bëgg wu sa billet loolu il faut il faut mbër mi jaral la ko lool mooy tax nga sacrifier pour dem mais bu dee bu dee fii la moom da dox ndànk dugg ci Issa bi am na yenn combat xam ne il bàyyi yéen mbëri mbëri yi di tëgg fii su ma déggee wax ji daal mooy amateurs yi lañ bëgg a génnee ci làmb ji ndax dañ daan liggéey ba 3 heures añ ba noppi daagu ndànk dem stade reesale ko fa mais léegi gannaaw arène nationale bi loolu du mën a nekk non mënu dula nekk mënu dula nekk xanaa xam ne premier xeex làmb bi nekk noonu première wax ji ni wax li nar a gën a rey làmb loolu ci la bokk sama diggante yàlla arène nationale baax na fi de mais dañuy jël arène nationale ak combat yi fa war a dem Iba Mar Diop gii ñu ubbi ko ak combat yi a dem ndax am na xam xamante ni am na mbër yoo te ne jarul leen ñu passé dagg billet bi dem bu fële ne di jël leen ko donc nag bu dee Iba Mar gi dem immédiatement donc loolu na si na si gars yi xel suñ suñ suñ kii bu bees bi suñ président bees nu mu tudd. Birasien ñu ngi koy nuyu baax moom tamit di ko souhaiter soirée le bienvenu di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm suñu papa ji fi jugee Alioune Sarr ñu koy ñaanal bu baax moom tamit parce que un boo xam te daa am lu mu doon représenter sur lamb ji nañ ko du tontu lijjantiwul la sa des li mu war def lay def bu jeexee jeex na mais nag ku bëgg a dem ku wax nga tontu ko doo dem fenn te loolu moom loolu dama koy nuyu si Alioune Sarr dama ko si koy nuyu baax baax baax. et puis tamit di ñaanal sama papa tamit Thierno Ka Thierno Ka sama papa la kooku sama papa la parce que dafa am fu mu toll si man dafa am Thierno Ka sama daf may jàpp daf may ñaanal daf may ñaanal barke sëñ Fallou dama ji ko jaag woo ko téléphone ñu waxtaan ma ak moom donc di nuyu waa CNG bi njëkk ba ñëpp daal. xam nga CNG bu njëkk ba ñëpp maa ngi leen nuyu ñi fi nekk tamit maa ngi leen sant di leen ñaanal yàlla ñoom tamit lépp loo xam te ñu ngi koy jaan ñu ñoom ñoom ñuy def ko loolu moom maa ngi koy souhaité quoi. non Onde le Fou Onde le Fou li ma la wax rek nee naa la dégg ma la Onde le li ma waxoon ci moom moom dégg naa ay xam dégg naa ay xam du ma ko manqué respect mais du ma ak Onde Onde le Fou du ma moom Onde le Fou mu dul 80 kilos mu dul 70 kilos man maa ngi posé 130 kilos. envie envie mun maa manœuvrer man du ma damay la moom moom moom mënu ma mënu ma manœuvrer xam na mënu ma mënu ma manœuvrer man écurie Fass laa nekk dafa am ay booy yu fa nekk yoo xam te ne ñoo gën a saf ondu fuuf te garaay bu ñu amee combat booy la ñuy jël dugg ko suñu biir ñu ni curux curuxee ond mais ond la fu par exemple ond la fu daa mën a daa mën bañ parisien man naa ko raw mais naa ko mais wax may bàyyi ma ak Ada Fass yow tamit waaye toi aussi. nañ nañ tënk bàyyi liggéey. <laughs> Ada mooy lan lan mooy Ada Fass Ada la daan na ko Ada Fass bàyyi fi dem am ay daan Ada Fass boobu ban amal Ada Fass isa xóotul ondu même or ko daan mais Ada Fass isa fi combat ba daan amal na combat taxaw ond la fa Baara Ndiaye kese ond mun maa daan ond mun maa daan barke Seydina Mohamed billaahi wallaahi taala on mun maa bu fekkee ne sëriñ bi da ko wax sarax bi tamit yàq na ko ndax on mun maa daan nan ma ñaanal sama combat Cobra 2 taxaw rek ma dafa ko li ma ko dafa dem ñibbi. ñu lay bàyyi ba beneen yoon yegg. le géant de Colobane ak lii dégg ma wax loolu noonu laa yàkkamti loolu rek laay ñaan yàlla mu sottee jàmm rek après Sénégal jëm kanam di leen nuyu nag di nuyu waa Colobane yëpp depuis tamit ñu wax ni Balla Ndiaye ngi jóob xaaruma xaaruma combat maa ngi liggéey. nga genre bagage yi nii ñu ngi nii robe yaa ngi nii place baa ngi nii gis ngeen lépp loolu lëgg dama koy envoyé instant yi di Gambie jam jëm borom ñëwul gisuma ko xawuma ko téléphone lañ déggante di ko commandé bagage di ko yóbbul donc de maa ngi suwee tamit ñëpp tamit ñëw jàppale mbër bi mu nekk fii nekk fële Sénégal jëm kanam. waa noonu la demee nag ah. jaajëf kontaan naa ci Adama déedéet ji. di nuyu tamit waa Kolban gi yëpp ah di nuyu waa Kolban gi yëpp di nuy nag sama waa atelier sama waa place sama doom day nii numéro diis la capo di capo tey musul génne dama bëgg nga waneen ma ko ndiir yàlla xaadim falay nii sama séeri baay nii maam jaara bu sa borom poroxaan tey doon sàcc iPhone am ndeysaan tey iPhone bi la yóbbu léegi mais nag xam nga di nuyu tamit sama waa Colobane gépp daal sama mafia bi lépp ñoom Cheikh Bara Ndiaye Codé Boy Guèye parisien mais leen nuyu di leen nuyu yéen tamit xam nga seen équipe bu bii nii amu morom yéen am leen jàmm rek pisoon loo man xaama ni